Nations Unies ci kanam ay natangam ci kanam aduna ci parce que fofu non président yëpp ñoo fay ñoo fay daje nekkul lu rafet ci euh, deru li nga xamanté moo di euh, Sénégal parce que président de la République Sénégal lay lay représenter am ñeneen ñu nga xamante ne euh, euh, ñoom ils euh, doon soutenir le contraire que nee nañu li nga xamante ne comme que mayuñu ko fii maanaam opposant yi di daal di manifester wu loolu lañ ko wanee fi nga xamante ne moom moo di Nations Unies mu mel nii ñaari camp ñoo ñoo xamante ne ñoom ñoo nekk di opposé wu camp bu ci nekk amal li nga moom ngay soutenir ma bëggoon xam yow ana commentaire bi ngay def par rapport ak li nga xamante ne moom mooy xew fële ci New York. xam nga nee naa ne loolu lu ab la. Euh, mais gënaluñu manam ñu ko def sax japp naa ne xëy du seen ciobare bop moo tax ñu def ko mais dañu dem ba nga xam ne fi ñu nek am mayetuñ leen manam possibilité mayetuñ leen fu ñu yak seen nak wax naa depuis un certain temps euh, manam les interdictions de manifestation mo nek la règle alors que dafa nek l'exception nit ñi bu ñu déppee demande pour sitting demande pour rassemblement demande pour marche ñu refuser len ko systématiquement muy fi Dakar di bitim rew gis nga fan yi leader yu doon def tournée même ñu gis préfet yi jël ay arrêté vraiment pour tere cortège yeeg ak rassemblement yi ak yu demee noonu mais xam nga euh, démocratie nit ñi boo demee ba nga xam ne da nga leen a bayone da leen fàtt ba nga xam ne fii ñu nekk seen biir réew ñoo wax il faut que ñu wut beneen pexe pour s'exprimer loolu moo indi donc vraiment euh, yeneen militants politiques yi nga xam ne ñu ngi nekk au niveau de la diaspora di organiser wu avant États-Unis sax gis nga au niveau donc de l'Europe muy France Canada ay nu mu tëddee Allemagne ak Italie Espagne foofu yëpp diaspora bi fa nekk rawatina ñi far ak ak même yeneen parti d'opposition, chaque jour ñu ngi def ay manifestation ay rassemblement bo démé les Champs-Élysées place Concorde tout ça sénégalais ñu ngi def ay manifestation ko maintenant xëy a occasion la nous ñi dañ ko don xaar mu New York parce que New York comme assemblée générale des Nations Unies réew yépp a fay lu war mat 154 euh, chef d'État, chefs de gouvernement wala ay ministres yu fa seen réew yéen ne di fa tok alors événement boobu rëy rëy la était président bi comme je dis xëy une dernière assemblée générale euh, Nations Unies bu muy participer nit ñi donc préparé seen bir, bàyyi ba mu ñëw vraiment ñu organiser ay manifestations def ay dénonciations def ay ay ay ay maanaam euh, ko pour wane ne image bi muy wane ni le Sénégal démocratie la lolu amul Tay li fi am mom moy répression mo fi am euh, nit ñi dañ leen maanaam muselé ku ci wax ñu japp la am na ay prisonniers politiques manifestation yu fi am am nañu ñu ñu ci ray ray yo xamne donc amul ben enquête yoy yëpp non seulement dañu manifester fi hôtel bi président nekkoon mais dañu jël sen matukaay ci walu communication image yi nga xamne mo am fi ci nit ñi ñu fi rey ñu def ko ci ay oto di wër di ko nit ñëpp xam lolu vraiment mënon nañu bañ ag fofu comme je dis parce que lolu da fay gakkal vraiment euh, suñu image rew xam nga alors que bu fekkone fi vraiment pour man japp naa ne nit ñi bàyyi dañ leen ñu exprimer wu mais loolu yépp xëy peut-être duñ parce que nous, dañ dem ba jàpp ne fii bon mënatuñu wax manifester librement pacifiquement ñu porter le combat à l'international et loolu vraiment baaxul ci euh, euh, euh, suñu suñu démocratie baaxul suñu image président parce que benn taskatu bu Zimbabwe bu ci bind wax fekk chef d'État ñëw les Nations Unies nous accueillir les accueil mais en 15 ans c'est la première fois que nous mu ce lu mel voilà président vraiment quand même ñu ko bu mel ko et que na franchement dina président Macky Sall vraiment lu lu donc il ne se relevera pas euh, de cette situation de cette campagne de dénonciation et lolo, je pense que donc devons éviter donc mais n'est pas la première fois que nous lolo dans l'histoire du Sénégal parce que si vous ci jamono Abdou Diouf bi nga xamee les nit ñi ñu ngi pour démocratie pour am élection élections transparente Abdou Diouf invité les ko de def France au Palais Bourbon Il a parlé de partis ñi parti partie nekkoon gauche bi LD AJ AG, ñëpp leaders, leader ak même de simples citoyens dem France de foofu def fa ay manifestation yuuxu ko dénoncé li fi amoon xëy na nag agul amul woon ampleur bi mu am peut-être que xëy na nit ñi bu doon mars sax xëy c'est une une centaine peut-être ou peut-être quelques centaines bari wu ñu woon euh, euh, Ablaye Wade ci bopam. bi nga xam ne fii nit ñi ñu ngi vraiment jànkonte ak moom di euh, ko dénoncé et cetera ci yenn dérive également am na yoon yu mu demee Europe aussi nit ñu organiser ay manifestations, jéebaane ko mais bii yoon nag mon moom bon vraiment vraiment dafa jege dayo ci ampleur bi mu am parce que vraiment dañu nekk ci situation où il y a comme les libertés donc il y a un rétrécissement des libertés euh, publiques hein, des libertés euh, politiques etc. que nit ñi amatuñu moyen d'expression démocratique ko defé donc combat à l'extérieur du pays donc def lu mel assemblée générale aux Nations Unies am ni fu hein, États-Unis peut-être Canada Europe ñu def une manifestation monstre comme fofu réew démocratie la gis ne ñi manifester nañu au contraire barrage ni manifestants am nga aussi Sénégal président euh,

notamment interview bi ma amal ak France 24 ak euh, TV5 waaye tam. Euh, sonkorisation bi nga xamante ne sonkorisé nañ ko fële ci New York bi mu demee aman li nga xamante ne moom euh, sommet ma bàyyi la rek bu fekkee ne am nga lenn nga bëgg a yokk ci waxtaan bi wala li ngay tëjee daal di waaw bon gannaaw bi ma la gërëmee sant la aussi rafetlu vraiment seen déplacement bi ngeen ngi rafetlu parce que c'est la première fois. may def interview def naa ci chaîne bi Kéwoulo bii nga dama koy suivre nag tout le temps euh, di suivre euh, enquête yi nga xam ne ak investigation yi nga xam ne seen euh, patron bi Babacar Touré mu ngi koy def dama leen di suivre tout le temps c'est la première fois donc ma am interview ak ñoom maa ngi koy rafetlu mais li am solo rek mooy xam nga dañu jëm ci ay élection man li ma gëm mooy nañu fexe ba président naan ne du bokk mais na fexe ba ñëpp rafetlu ko na fexe ba génn bu muy génn gën a gën a rafet nous a rafet bi démocratie élections libre transparente démocratique et puis yu inclusif cest politique vraiment képp koo xam bëgg nga élection xam Ousmane Sonko xam sénégalais je crois que ñoom léegi dañu nekk peuple bu mature damay wax ne sax dañu en avance sur la classe politique kenn du leen dicter maanaam li ñu war def Ousmane Sonko bokké ci élection bu féké sénégalais mom moom doyu leen duñ ko votel boo leen doyé dañ ko votel et puis vraiment la vie continue man pour man lool laay vraiment fi né ni ñaan pour ñu fexé ba dal indi ci ñew ci réew mi stabilité nañu fexé ba vraiment jël ay décisions yo xamné da fay participer ci décrispation bi jamm am et loolu ça passe par la libération de tous les détenus politiques ñu yag nañ ko euh, revendiquer au niveau de la société civile ñuy japp ni tay ci kasso yu bari nañu ñoo xam ne dafa ay déli yoo xam ne franchement darul sax dóor sa doom wala koo xam ne aussi am na lu lay toppee nañ la àtte buñ lay tëj tëj la buñ lay bàyyi bàyyi la donc vraiment nañ ñu libéré d'une politique bu Ousmane Sonko vraiment nañ ko libéré c'est un citoyen sénégalais am na ay ambition pour réewam mu dem élection bu gagné ñu xam ne sénégalais yi ñoo ko wóolu buñ ko wóoluwul tamit mais duñ ko jox ñu jox keneen ainsi de suite donc loolu moo war a rythmer un peu la vie démocratique donc du pays et loolu mooy garantir stabilité parce que Sénégal dafay dugg ci benn ère bu bees avec comme j'ai dit production gaz et pétrole et nous nañu aussi le contexte sous-régional bi les conflits dans les pays voisins Il faut que nous tax ñun jàmm bi ñu yàlla may fii ak dal bi ñu ba sauvegarder ah, vraiment il faut à ci ñaari at yi yëpp ay ja jàmbaarloo ay nit yi di dee dañ ko ba éviter parce que Sénégal une nation la benn population vraiment nañu fexé ba éviter yooyu réew mi ñu mën ko yoré ci jamm ak salam man dal moy li nga xamné dank man mom lay ñaan nit ñi il faut que ñu apaiser aujourd'hui vraiment donc euh, la la la situation ñëpp xam nañ tension amna ci réew mi té tension bu amé non seulement euh, euh euh euh euh réew mi ni mu waroon doxee di ko mais gis nga ñu bari ñi nga xamné dañuy indi sen alal fi mëna bëgg investir ku ci nekk fi mo da ngay téy sa loxo parce que xamulo ëlëk nu muy nara démé yooyu yëpp donc ay problème yo xam ne donc war nañ ci bàyyi xel amna ñu pour man yeneen défi yo xam ñu gëna important moy fexé ba réew mi tegu ci yoon ñu jublu ci soxla sénégalais parce que sénégalais yi sonn nañu la vie est extrêmement chère dund gi cher na metti na gis nga chaque jour ñu ngi wax denrée de première nécessité ñu ngi dem surtout les gens sont devenus fatigués gis nga école bi ñu ngi jëm ci ouverture de classe amna ay problème barki dem gis nga ñu ngi wax par exemple les déficits yi am ci école ci walu enseignant euh, euh, ci walu même école école yi nga xamné ne fi ndox mi nangu nako école yo xamné amul toilette école yo xamné manam il manque de tout abri provisoire yi nga xool ci walu agriculture bi nawet bi xeyna ci yenn côté yi am na nu mu démé euh ni mu ni ni mu waroon xeyna démé démé wuko donc yoy yeb ay défilé yo xamné ni yoy ci yoy lañu wara taxaw pour man mu ëpp fayda bo mbiru pétrole bi ak gaz bi ni ñu fexe ba tay buñ ko exploiter mu jëriñ sénégalais yi vraiment ci dal ak ci jàmm pour man défi yooyu ñu am daal on a tellement de défi que yii nga xam ne vraiment pour man ay ay ay mbiru politique politicienne la ay dañ ci war a bu ñu génn ci man daal loolu laay ñaan encore une fois euh, euh, appel à plus de responsabilité de la part de tous les acteurs politiques plus de sérénité rawatina ci ñi nga xam ne tey ñoom ñooy jiite parce que comme je dis euh, dañuy wax naan euh, lam pour mu yëngatu il faut mu nekk ñaar donc nit ñaari loxo mooy mais bu fekkee ne donc ñenn ñi ñu ngi jël seen karwaas di dóor aussi mais mbir mi du sotti ah bu fekkee ne tam ñaari nit ñu ngi xeex ku nekk di dóor aussi mbir du sotti waaye li ci ëpp lu ñu gis daal mooy dafa am ñoo xam ne ñoo yore seen karwaas di dóor mais ñi si des tamit ñoom dinañu xool ay forme yoo xam ne dinañ leen mën a permettre aussi ñu résister ñu euh, maanaam esquiver dóor yooyu ci situation bu lañu la ñu toll nii te loolu nag dañ ko war a éviter pour intérêt Sénégal pour jàmm Sénégal